déedéet libération ne gaal gi riir ci géej gi juróom-ñett fukki nit ñoo ci nekkoon te nag bëri lool ay jigéen ci nekk ak i ndaw yoo xam ne seen at matul fukk ak juróom-ñett te samedi gu ñu weesu junneeg ñaari téeméer ak fukk ak benn nit ñoom ñëpp Sénégal gi la ñu bàyyeekoo ngir dem Barça mbaa te yegg nañu Espagne am na ci yeneen yoo xam ne dañoo bëggoon a dem Barça mbaa waa ji leen a a yóbbu nag mu leen tëgg lëndëm dëgg teg leen la marine bu nekk libération ne douane bu Sénégal la mu sàlloon ci réewum Sénégal di taxaw askan wi seen wàllu kaaraange ak seen wàllu wéru yaram ba tey daal ma nga ca ndaxte gars yi colonel Abdourahmane Dieye benn réseau nag la daaneel diggante Ndakaaru jàpp Thiès ba Mbuur ak lu toll ci téeméer ñeent fukk juróom benn junniy litre carburant yoo xam ne dara baaxu ci te ginnaaw lii lépp am na ñoo xam ne ñoom ñëpp ñu ci loxo yoon ñu jàll pirogue boo xamante ni maanaam aw gaal boo xamante ni nag ci la jamono réer na mër eh, ci li nga xam ne nag moom moo di waax yi boobu ak léegi ñi yëngu ci wàllu napp wala boog seen ak njaboot eh, ñu ngi rek daal di xaar fan la ñu war a mën a séntu eh, seen i ay doom ki nga xam ne itam moom moo di Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières waxtaanee na lu ni mel daal di wax rek lu ëpp juróom-ñetti te juróom-ñetti fukk ci ay doom yi aadama ci ñoom ñooñee nag ay soxna ak itam ay tout tànk ñoo nga ca boobule gaal dikkaat ci élection présidentielle atum 2024 fi ci réew euh, bu Sénégal la mu xamle moom moo di nag euh, amal ay élection yu mucc ayib euh, ci wuté ki nga xam nak mom modi Ousmane Sonko lu ni mel mi ngi ko yëkëté ci li nga xam nak mom modi page 4 diap 8 bu Libération